Papis Ndiaye. gëm sa bopp. gëm sa bopp bi waaw effectivement. Bougane Gueye. maa ko wóyaloon en deux mille dix neuf si. maa ko wóyaloon gëm sa bopp borom télé bi. waaw ki am jom. loo ko waxoon. en deux day gëm boppam. Bougane nee na gëm sa bopp. Bougane Gueye teraangaam ci diggu réew mi kenn du ko laam-laamee. jaamu sa askan nag ba ñu naw la ba jox la sées nga toog boo ci toogee dina sedd sa gannaaw ba ndax ku validé Sénégal a validé Bougane Gueye li mu woote Bougane nee na gëm sa bopp. nit ku baax na gëm boppam Aliou Mandione gëm sa bopp. waaw eh, léegi nit ku baax day gëm boppam ana Cheikh Thiam gëm sa bopp. waaw waaw. <laughs> nit ku baax. xool fi kii fi mu ngi fi dañu fi. ko doo ko ki koy maaw koy ba mu ne bugaan ngay maaw koy ne sa bopp. na gëm sa <laughs> bopp. bari ku ma taaj ku taaj tu ma déwén ku ma sax xool ne dee. tey ma toj télé bi. waaw waaw tey ki toj ah bon oh yee. gëm sa bopp Sénégal la ma fi yónni ne la gërëm. léeg-léeg sax ma jaar ci biir kër ga di la sànni da laa te njiit mu réew ma ma kenn te da ngaa làq ngërëm gëm sa bopp. waa ay ay bu gàtt nee na gëm <laughs> gëm sa bopp bugaan la laaw woy bugaan nee na gëm sa bopp séeri moomi sama waa ji dinaa la waxal yi ñaar gis nga boo ko gis jotee man ni maa la ko wax am nga jom am nga jom bëri fay nga kenn yabagul te dangaa nangoo liggéey bugaan nga na nga liggéey ni nga leen lan defoon lu bon mi sa bopp woy eh gëm sa bopp <laughs> bugaan nee na gëm sa bopp dégg ko gëm sa bopp mu ne bugaan nee na gëm sa bopp eh bugaan tey ma mën a tàgga tax tax di wër xatax ah. bugaan di tax ak tax doonu benn noonu man ba tax bali yàlla tax li tax ba tax ba a tax moo tax ay gëm sa bopp <laughs> bugaan dee na gëm sa bopp <laughs> gëm sa bopp laay lay la la wuy wuy bugaan nee na gëm sa bopp te xam may baax ba mu tërërëri te Arabie Saoudite ku fa sax ñu dagg sa loxo gis nga Sénégal ku fi def ndax ñu wax la ko seex jëlal sa bi kin sa kay te bind am lu mu wax ne du ca def ay rëbam koy dee dama koy def joo ko <laughs> la gërëm te muumi xoolal sa jëkkëram a fi yónni ne naa la gërëm ne yaa saf ceeb yaa nooy yàpp yaa feragoo gëm sa bopp <laughs> artiste bleu là artiste hors pair hors pair il est trop fort il est ma jàppale ñu mën nañu jaay mën nañu jaay ñëw ci njaay mi waaw dañuy ñëw ci njaay mi suñu jaayee ba pare ñu dellu ci combat bi dox ci diggante soq ak Marley mhm. bu ñu ci Sokh ak Marley dañuy dellu soit ci am bongo tubarkàlla moom euh, ndaanaan la dëgg la euh, te ku ñu war a bàyyi xel la ci ci ci li ci li muy def mhm. tubarkàlla Euh, Sénégal nag tubaarkal dañ naan la dana baax dana baax su baaxee ñu commencé laa yàq. dëgg la de waaye mais moom tubaarkal mi ngi baax. ay ku yàlla baaxal nga a baax bay baax da ngay baax ba ci gub tey noonu la ànd ak njabootu Harmonia Harmonia nag am na lépp loo xam ni xeetoog euh, luy setal kër ba nga mën a mucc ci xeeti jàngoro yépp moo xam Harmonia lave vitre euh, lave vitre Harmonia nettoyant meuble Harmonia antiseptique ak lave main raxas say karo bu mu set wecc douche ba mu set wecc waaye tamit nettoyer sa meuble muy tàkk raxas sa oto bu mu set wecc loolu lépp nag yaa ko mën a am ci Harmonia am na Armagnan Javel lagg leen jënd ko ci marché yi grande surface yi boutique yi fu ngeen dem am ko gën na ci suñuy kër ndax ñu mën a mucc ci xeeti jàngoro yi nga xam ne moom moo ñu sonal corona ba ci suuf. ay ci mi ngoog noonu la ñu àndee itam mi nga xamee ni. Euh, mm-hmm. moo ñu indil décodeur canal bi tax ñuy mën a seetaan chaîne yi ñu neex Canal Plus nag dafa nekk ci promo décodeur bi jar junni 5000 francs CFA ci boutique Canal bu la gën a jege boo mënti dem di ko am yamuñu ci bu ñu lay installé décodeur bi dañu lay may antenne gratuitement doo canal yamu ci daf ci teg may la fukki fan ak juróom yoo xamee ni da mën a seetaan euh, sunu ay chaîne ñun waa canal te doo fay profitoo leen ci ngay butiku canal yi leen gën a jege ngeen daal di am décodeur bu baax bi am chaîne yu neex bi mooy canal plus ay ci ginnaaw ci canal plus noonu la ñu ànd ak euh, li nga xam ne mooy Free Money